comité comité supporter AS Pikine comme ni ñu koy waxee yaatu na bëri nañ torop leneen lu ma ciy yokk mooy tey jii nii dama bëggoon dikk sax ci lool noonu nga wax noonu mbir mi nekk na foo xamante ne AS Pikine am nay plateforme yoo xamante ne tey jii nii fépp dugal nañ fa pour nit ñi xam ko tey jii nii lu ci mel ne waa diaspora bi ñi nga xamante ni ñu ngi représenté foofu noonu ñoom jot nañ ci lii ba tey jii nii am na lu ñu xamante ni ñoom ñu ngi ciy def seen participation nii nii mais comme ni ma koy waxee chaque jour tey jii nii lu ci mel ne AS Pikine tey jii nii dafa am ay ay plateforme yoo xamante ne ay groupe WhatsApp et tout mais tey jii nii appel bu may lancé tey jii nii ci seen bëgg tey jii nii AS Pikine ñoom nañ ko wane ci lii parce que tamit bëgg AS Pikine nekkul ci wax ko kese équipe bi dafa soxla ay moyens te nit ki boo bëggee tamit ci li ngay li ngay wax lu ñu naan dëkk boo fa ñëwee jëfoo ci waxoo ci da seetaan si te ñun supporter AS Pikine waruñu nekk tey jii ni ñoo xam ne dañu seetaan parce que championnat Sénégal dañ koy wax haut et ah ñun ñooy seul club boo xamante ni ak Casa Sport fépp fu ñuy suñu équipe di dem bu geesoo gis ay supporteurs am comme tey jii nii les moments difficiles yi nii la ñuy woo supporteru Pikine yi tey jii nii ci lii nii nga xamante ni mooy Copper Express bi ñu parce que tamit dans dix jours ñu am ci cent. cent quarante quatre mille man xeeb naa ko parce que benn cinquante mille bi benn nit a ko joxee kon tey jii nii supporteru Pikine yi ñoom nañ wane seen bopp ci plateforme bi quinze jours la ñu waxoon ne maanaam dañu war a verser deux cinq cent. kon tey jii nii ñoom ñëpp war nañoo yëngu ba nga xamante ni bu vendredi di jot ñu am baar bi maximum ñu am 1 million cent mën a dem ci ci bureau CD bi teg ko ci seen loxo ñu xam ne ñun Pikinois yi supporters yi am na lu ñuy apporter suñu équipe. parce que tamit football bi moo toll foofu instant yi nii football bi nekkatul ñëw rek sol sa yére dugg stade seetaan ñibbi bu dee sa club da fa bëgg am baat da ngay yëkkati ci say poosu bopp di ci jàpp rawatina fii nga xamante ni football bi dafa bëri lu mu manqué. maanaam tey jii sponsor yi nii ni ñu war a ñëwee ñëwuñu ko partenaire yi li ñu war a ñëwee ñëwuñu ko. bi loolu force la xam nga lu tax loolu force la tey jii nii AS Pikine waxuma su may wax sax damay généraliser au niveau national damay généraliser football moyen la te moyen yi nekku fi tey fii nii comme ni ñu koy waxee benn lam du yëngu. benn lam du yëngu te tey jii nii lii nii rek ci ci feebar bii nii rek état bi war na cee jël njàngat ci wàllum football bi pour dooleel ko dooleel ko comme di jël ay référence tey jii lu ci mel ne ay gine yi nga xamante ni tey jii ni bu ñuy wax seen équipe nationale du ñu wax suñu équipe nationale du bokk ci taxawaay kon tey jii ni ñoom bu ñu demee ba mën di jël suñuy joueur di koy yóbbu ay gine ñun suñu suñu suñu état bi war na xoolaat ci loolu lan moo waral tey jii ni ay joueur di jóge fii Sénégal di dem di jouer ji di jouer ji Guinée te ñun ñu yor ñoom Sadio Mané ñoom Gana Gueye kon lan mooy problème bi ñoom nañu xoolaat ni waxtaan waxtaanee dooleel club yi fi ne parce que club yi club yi fi ne nii nii dañu manqué ay accompagnement accompagnement yi mooy tey jii ni sponsor yi nii tey jii dañoo war a ñëw lu ci mel ne AS Pikine man su may wax sax ci turu AS Pikine laay waxee croisement Cambérène ba Kër Massar 27 entreprises ñoo fi nekk te kenn ñëwu ci war a mën a sponsoriser équipe bi te loolu du yoon visibilité ci ñun la fekk baax boo ñëwee Pikine day frenkulaay nga yem fi kon gars yi nañ ñëw accompagner équipe bi beneen appel bu may def man maa ngi jégalu lu tax dama ko wax woon fàtte Kopar Express bi mi ngi en fonction te duñ ko bàyyi loo xamante ne continuité lay nekk mais dafa am beneen boo xamante tamit dañ ko cee xalaataat dolliwaat ko ci muy maanaam chaque jour de match à parti de 10 heures danañ defar suñu 200 tickets yoo xamante ni dañuy ubbi suñu guichet à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures képp kuy supporteru pikin comme ni ñu koy waxee mën ngaa def fii def fee lépp li nga xamante ni dajale nañ ko ci jouru match bi même bu dalee bu day bu dee 50 000 la ñu yëkkati ko teg ko ci suñuy loxo dirigeant pour transport parce que comme ni ñu koy waxee. football Sénégal boo xoolee joueurs yi du lundi jusqu'au vendredi dañuy ñëw entraînement te ñenn ñi dëkkewuñu Pikine te dañu war di am ay transport tey su tollee ci prime de match tamit ñu joxe ko su tollee ci maanaam tamit loo xamante ni ëpp na lool tamit ñu ngi leen ci nuyu mais ñu ngi leen ñu woo ci lool noonu xam ne chaque match ici au niveau de l'stade Alassane Djigo ñu ngi woo supporters pikinois yëpp ñu ñëw ci gise bi def ci seen participation delluwaat seen kër toog seetaan match bi comme ni ñu koy waxee ci ligne bi nga xamante ni moom la président Lamine Gueye géré